bismillahi rahmaani rahiimi barkeb Cheikh Ibra Fall bismillahi saalihu rahmaani seyxi saalihu rahiimi seyxi saalihu alhamdu seyxi saalihu bismillahi saalihu rahmaani seyxi saalihu rahiimi seyxi saalihu saalihu déglooti leen ma dellu jóg man Abdou Bakk mbër ma mag mi xam ne moo nuy tax a jag nu naa ko seyxi saalihu ngir moo di xaadimul xadim jëwriñu Mustafa al dooma di bàyyi bàyyi di doom daama di seyxi saalihu moo daane seytaane rajim tëj buntu jënam jahannama ak jahim ubbil nu jannatu nahim jasaaka seexi saalihum penku soo woo kullu zaman ruuyi murid yi fii fanaan ruugu ci faatu dem jinaan ci barke seexi saalihum diggante suuf ak asamaaw nit ak jinneeg nu fii njanaaw jibrilu moo leen gën a gaaw te gëm na seexi saalihum sahaaba yaak ahlu badar waa jundul layin akbar fa mulku layin akbar lañ xamee seexi saalihum sahaaba yaak ahlu badar waa jundul layin akbar fa mulku layin akbar lañ xamee seexi saalihum mboolem tàmm ëwal ba kero bufti bi di wal seeni biran ci saalihu mboolem ña yàlla daa yabal la tàmmulee yow ma ëwal ba kero bufti bi di wal seeni mbiran ci saalihu la tàmmulee taxta sara ba jàpp taxta sajara ma ne koo xëy di sara ci mbiri seyxi saalihu ka wuyu woon borom aras balee keroog yow ma alas di joxe attey waa aras lañ tudde seyxi saalihu turam wi jar naa tudde doom ba jur mat junni bi doom tudde ko ñëpp ngir jikkoom sante ko seexi saalihu ngir mooy sunu xutbu zamaan mooy ramu aaxiru zamaan di atte woo ci alquran ba yàlla naa ko saalihu moo fonk quraanul karim fonk xasaayidul xadim te mooy borom xayral maraam jasaaka seexi saalihu kullu kibaarun wa siqaar ñëpp a ngi koy xëy di ziyaar mu dinu jàmmal dinu haar jaajëfe seexi saalihu tarbiya moo ko yeesalaat gàmm yi moo ko yeesalaat xéwal yi moo ko dolliwaat jaajëfe seexi saalihu jaara yi di sant Seyxi Saalihu moo jàpp ndaw di tarbiya di jàpp mag di tarqiya di ko defar di tasfiya muy sant Seyxi Saalihu jàpp julleeg jàng ka bay li la saxoo ban di ko woy muy fabi xéewal di nu may nan tagg Seyxi Saalihu sanc na daaray la xasaay yoo xam ne yëpp a ngeeki gaay te ku ci nekk mat na waaye di jaamu Seyxi Saalihu la dale xabbaana ki muur daaru salaam ñëpp a ngi buur di jaamu yàlla mii di buur bi yónni Seyxi diggante ndookaa ba njurul ba jàpp ngoot ba jàpp ndal ba jàpp jaaroo ñibbi ngel xam xam nañu seexi saalihu woote na xel kom di ko gor murit bu nekk gàddu ñuru mel ni ku jëm xare badar ngir jëmmi seexi saalihu sëriñ bu nekk aw sasam mu di fa féete ak ñoñam te di fa togg luy ñamam di gor di sant saalihu gor nañ garab ya daane ko gas nu na reen ya dijji maa sali suuf sa bay lu ko jaajëfal say xisaalion gor nañ garab ya daane ko gas nu na reen ya dijji ko maa suuf sa bay lu ko jaajëfal say xisaalion yóbbu na foofa daara ya teg fa muri di tarbiya ñu di fa sàkku hëddiya ngir jëmmi say xisaalion fora su rëy ya welli na seen ndox mu neex ma xelli na si kar su neex sa jolli na lii lépp Seexi Saaliw ki maana ngi gu ñëpp yéem goo xam ne kenn dootu ko jéem ku wóolu yàlla sun borom jàpp ci Seexi Saaliw jébbalu rekk am njariñ ku bëgg a baax te am njariñ wutal sëriñ bu mat sëriñ te moo di Seexi Saaliw moo wóolu yàlla sun borom ba yàlla def ko muy borom xarnu bi ndax amul moroom morom jaajëfe Seexi Saaliw mu dëddu àddina ak ñoñam te dénk yàlla ay mbiram noogu mu yi muy ngërëm jaajëfe Seexi Saaliw moo dëddu àddina ak ñoñam te dénk yàlla ay mbiram noogu muy ngërëm jaajëfe Seexi Saalihu yàlla nañ ñu may ci moom ngërëm ngërëm lu ànd kii dërëm ci barke Bàmba may mbiram amin ci Seexi Saalihu yàlla nañu ubbil wépp yiw tëjal ñu bunti wépp ay te may ñi ñuy gott ak xëy ci tool yi Seexi Saalihu ci barke Seexi Ibra Faal Maam Lamp Faal Aboori Jaal yàlla nañu gën di làkk xaal di sopp Seexi Saalihu ci barke Seexi Ibra Faal Maam Lamp Faal Aboori Jaal yàlla nañu gën di làkk xaal di sopp Seexi Saalihu subhaana rabbika العالمين